ngaan Senegal problème yi fi posé yépp tak ko nobul mm-hmm. ta nak xam nga lu gëna graw mm-hmm. bëggante nit ay at ñu xey xëy weñ sa loxo may la kenen mm-hmm. nga fay sey ta nobo ka ngay ya nga créer ay problème xam nga noo koy bul tukki bul sori bo takkee gelu jàmbur mm. bul tukki bul sori del ne ci kër gi tous les jours d'accord ñaari xol yu miinante yàgg a gisee. Mm. yàgg a joxante rendez koo xam ne sa numéro bind na ci tur bu ne bébé chocolat mon amour racine de ma vie ma vie nangam nangam. Mm. congaan am na ñoo xam ne bu ñu la nee mën nañoo bàyyi nit ki waxuñu la dëgg. Mm, soo ma naree maye. te ma am ku ma jox sama xol. te mu leer ma ni ki nga may may bëgguma ko te du ma def sa su ma demee ca sëy ba am fa bàkkaar. ma toog bañ a sëy moo ma gënal may sëy ku ma noppul di ca am bàkkaar yenn saa yi jigéen ne la man su ma bëggee am bànneex damay xalaat ki ma doon ki ma ki ma takkul ki ma nekkaloon pour ma yëg sama bopp mais loolu lan moo ko gën a rëy ci bàkkaar